débat moom la euh, sénégalais duñ xaar te député yi ya fa nekk instant bii nii ña nga nekk ña nga nekk di di doxal loolu noonu. waaw bu dee député yi nekk ci kujje gi mm-hmm. euh, vraiment jox nañu satisfaction parce que boo dégloo Guy Marius Sagna nga déglu Abass Fall nga déglu Birame Souleye mm-hmm. nga déglu euh, Aba mbay mm-hmm. ak ñeneen ñi ak ay soxna yoo xam ni maa ngi leen di doog a découvrir ñu impressionné ah. ma positivement ñoo xam ni elles ont vraiment la tête sur les épaules elles très responsables loolu dañ ciy am mbégte euh, day contrasté nag ak député nguur gi nga xam ne ñoom ba léegi ca la ñu nekkoon la ñu nekk rek dañu foog ni ŋàññante saaganteeg xastanteeg defante lu ñaaw moo leen indi assemblée nationale maanaam mhm. xeex ak guerre mhm. moo leen indi assemblée nationale alors que discuter euh, fu réew mi jëm ci euh, budget am ci ay projection am ci ay projet am ci ay loi ci ay lépp donc lu sérieux sérieux la affaire u Alfousseynou Guèye bi rek nga xam ni moom moom lañu doon évoqué léegi mm-hmm. te muy docteur bi nga xam ne moo def certificat médical bu Adji Sarr mm-hmm. euh, honorable Mamadou Lamine jàlloo tey rek interpellé na ministre de l' intérieur ne ko Alfousseynou Gaye ñu ngi koy xoqatal ñu moom médecin bi waaw moom médecin bi nelawatul assemblée lañ ko teg de mm-hmm. nelawatul ci circulation bi sax amatul jàmm ñu ngi koy sonal ñu ngi koy fitnaan te du yoon te nee moom mbokkam la ñoo bokk ki leen yar ni ministre de l'intérieur na nga lijjanti affaire boobu pour moom mu am jàmm donc ça veut dire que ñuy exercer ay pression ci ay ay ay ay personnes assermentées ñoo xam ni dañu produit seen acte administratif ba noppi ñu leen di menacer déggoon ngeen Babacar Touré ni jéem nañ fi saboter otoom jéem nañu def infraction këram et cetera et cetera loolu tey mbokkam. du Lamine Diallo honorable député moo ko confirmé ba interpellé ci le ministre de l'intérieur te lii yëpp mu ngi xew ci jamonoy coupe du monde bi ñu bëri xamuñu ni woo nañ ko ba entendre ko woo nañu Sidi Ahmed Mbaye ba entendre ko donc ñoom ñu ngi profité di teg li ñuy teg affaire yu ñuy disparaître ak yooyu yëpp mhm. c'est c'est c'est c'est dans le même contexte lañ ko dundee donc assemblée bi oui am naa ci vraiment motif de satisfaction parce que ñu ngi poser les vrais problèmes yi nga xam ni moom la ñu war a poser assemblée nationale donte nag mhm. euh, beneen camp bi ñoom ñu ngi toujours ci ay defanteeg saaganteeg ŋàññante alors que Guy Marius boo ko dégloo mhm. da ngay da ni lii yéex na am quoi boo dégloo Abass Fall Birame Souley ak femme yooyu ñu baal ma jàppaguma seen xam naa ni dinaa leen gën a nemmeeku sax parce que dinaa gën a bàyyi xel ci débat donc euh, ñoom ñëpp am na ñu taxawaay boo xam ne daal moom lañu doon sentu ci ñoom. d'accord parce que gis ngeen affaire Prodac bi ñu ni dañuy ubbi enquête parlementaire affaire élection yi lépp ñu ngi ciy interpellé les ministres concernés. moom Mbaye Niang moom nee na défier fi mu ne nii. non moom défi défiem dafa yomb parce que <laughs> dafa profité ci benn lapsus wala benn méprise parce que Sonko. dafa viser IGE IGE inspection générale d'État alors que IGF e e moo produit rapport bi surtout tout moom nag bu ko neexee mu waat ni IGE mosu koo épinglé. mais mais Samuel Waat mi rapport épinglé wu ko donc foofu rek lay lay prox loolu te loolu dafa dafa xaleele trop quoi ci koo xam ne xam nga ni rapport IGF dafa reconnaître ses responsabilités ci initiative bu décaissement euh, crédit yi à l'endroit de Green de euh, euh, Green mooy société israélienne bi nga xam ne mhm. balaa muy am contrat sax jox nañ ko ndigal pour mu jot xaalis donc loolu anomalie la boo xam ne dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko relever ci rapport yi te rapport lu ñu bind la du loo xam ni day changé tey wala wala mooy comme rapport gendarmerie ak rapport département d'état bi rapport contrat d'armement yooyu yu yu dul changé la yooyu bu ñu ko tegee ci table bi tôt ou tard yoon dana ci mën a def liggéeyam donc weddeek ñàkk weddee ci yam mais lu am la d'accord <laughs> kon ise hmm. IGE hmm. bi ñuy sukkandiku daal euh, hmm. ci ci li ko wax ci IGE bi loolu mënul wàññi ci mbir yi dara quoi. non mënul wàññi ci mbir yi dara parce que euh, Prodac. mais Prodac dañ fa dañ dañ fa lubal xaalis. Euh, man yàgg naa wax ni dañu mës a jaay moo expliqué la dix pour cent wu ooru Sénégal Sabodala bi ñu waroon am. Mm-hmm. dañu waroon préempter dañu waroon jënd dix pour cent d' actifs supplémentaires 2016 2017. léegi loolu nguur gi daf ko jaay daf ko jaay dix millions de dollars tey ji six milliards et quelque la mais ca booba cinq milliards kese la woon manqué woon na tuuti sax cinq milliards quatre milliards euh, cent et quelques million la woon ci jamono jooju. la ñu jaayee 10 pour cent or bi nga xam ne euh, euh, Sénégal daf ko war a am ba abadan mais bi ñu ko jëndee bi ñu ko jaayee. Mhm. xaalis bi xam nga fan lañ ko dugal. Mhm. Prodac mu seey ci 29 milliards yi seey ci la 5 milliards yooyu bokk. domaine agricole communautaire bu Itato Itato benn dëkk bu nekk Kédougou la ñu dugal 5 milliards yooyu mu ànd ak loolu seey loolu ay firnde la euh, ITIE def na ko ci rapport am te affectation direct lu ñu tere la ci règle et principe budgétaire parce que bépp xaalis bépp recette bépp dépense dañ ko war a màndargaal obligatoirement ci budget bi balaa muy génnaat te bii dañ ko jël rek dugal ko directement Prodac mu sey loolu ñoo ko tey donc léegi président Macky Sall mhm. euh, war na assumer ay responsabilités parce que dara mënul am sans son aval et son consentement moom président euh, mais mais euh, Mame Niang bi ñu ko épinglé daf ni woon day démissionné benn dimanche muy wër naan day démissionné fu muy déposer lettre de démission dimanche mais après Macky Sall da ko jël def ko chef de cabinet présidence Abdoulaye Daouda Diallo mi nga xam ne moo signé une fausse facture ci contrat d'armement 45 milliards 300 millions bi ñu ko wàccee. Macky Sall daf ko jël def ko def ko directeur de cabinet mu sës rëkk ci moom. kon moom mais il doit rendre compte de sa bi nga xam ne moom moo leen coiffé ñoom ñëpp. ñoom ñëpp ñu nekk euh, euh, objet de malversation ñu leen di joxoñ baaraamu tuuma ñooñu tey ñoo nekk di menacer nit ñi naan lañu leen di tëj kaso ñoo fi nekk di jàppaate sàcc yi ñoo fi jàppaate loolu toujours ma déplorer ko donc 94 euh, milliards yi ñu fi yëkkati woon. Mm-hmm. OFNAC jox na dëgg Sonko mais léegi problème bi mooy naka la ñuy def ba Sonko xam ni OFNAC épinglé na Mamour Diallo. Mm-hmm. naka la ñuy def ba. IGF rapport am fuité mais woon nañu sax ni Amadou Ba mooy xeex Mame Mbaye Niang ci jamono jooju xaw ma ndax déggoon nga loolu am déet. waaw yu moo nekkoon euh, ministre des finances. <laughs> yu lu nekk lu nekk am na fi mais toujours est-il que ñoom lépp lu ñuy def. Mm-hmm. dana tegu ci pénc bi ñu bëgg ko walla ñu bañ ko. Mm-hmm. te am na yeneen yu ñëw. Mm-hmm. yoo xam ne dañ ko teg ci pénc bi yu garaaw a garaaw a garaaw garaaw ñu bëgg ko. ñu bañ ko. comme ñoom dossier la ñuy bañ a gis la ñuy bañ a dégg. Mhm. ku teg dossier ñu ñu tëj la wala ñu ñu ñu seyloo la wala ñu rey la. Mhm. newoon naa leen digoon naa leen ni chaque jour nañu teg dossier ci table man ñëw naa ak dossier armement ñëw naa ak département d' état dinañ ñëw ak yeneen dossier te rapport gendarmerie bi danañu exploité la ca des ñëpp xam li ci nekk in extenso. bi ñu kiiwee Pape Alé Niang waaw d' accord mais ci as biir assemblée nationale parce que déggoon nañ fi moom ministre de l' intérieur Antoine Diome ni. Euh, bon wala kon président Macky Sall sax wax ni moom am na assemblée assemblée bi nu muy taxaw bu bëggee bloquer ay projet am mën na di dissoudre assemblée bi <laughs> du gouverner par ordonnance tey ñu gis ni euh. démb gis nañ député yi euh, budget bi fii ministre moom Antoine Diome mhm. gars yi voté wuñ ko dañ ko mhm. dañ ko bloqué est-ce mhm. jàppoo ni loolu président de la république mënu ci jog yi pour pour pour dëggal kàddu yam waaw daal di gouverner par ordonnance waaw léegi euh, Bijou est-ce que mën nga dem euh, constitution du Sénégal article 77. article 77. article 77. Mhm. dafa ne ñoom foofu la ñu sukkandiku mais loolu mënut sa nekk constitution bi dafa prévoir effectivement ni ci yenn condition président mën na gouverner par ordonnance c'est-à-dire euh, assemblée moo koy jox dogal pour mu gouverner. Mhm. constitution du Sénégal article 77 dafa ne. l'Assemblée nationale peut. Mhm. waxul le gouvernement peut waxul le chef de l'État peut. dafa ni l'Assemblée nationale peut par ordonnance habiliter euh, le président de la République. Mm -hmm. de prendre des mesures qui sont domaine normalement du domaine de la loi. Mm -hmm. l'Assemblée nationale peut habiliter par une loi dama tëb sax par une loi. l'Assemblée nationale peut habiliter par une loi donc loi la bu ñuy voter assemblée déjà ñoom majoritaire ñu de façon claire mm-hmm. l'Assemblée peut habiliter par une loi le président de la République mm-hmm. à prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi léegi le cas échéant bu fekkee ni habilité nañ ko mm-hmm. euh, Assemblée nationale dafa war a ratifier chaque ordonnance bu président jël pour mu valable léegi président bu jëlee ordonnance day jaar assemblée assemblée nationale ratifier ordonnance bi autoriser ko ordonnance bi. d'accord loolu ba muy am cent vingt cinq députés. Hmm. mënoon na nekk parce que bi ñu waxee Covid. paf dañ ko defal loi d'habilitation mu teg loxo ci mille milliards def état d'urgence état de siège yoo xam ni kenn voté wu ko moom moo doxal loolu assemblée moo ko habilité parce que moo am majorité mais pour assemblée bi habilité ko mën na nekk mais il faut opposition bi d'accord ci foog mu waxtaan ak ñoom gii waxtaan ak ñoom Abbas hmm. waxtaan ak ñoom Birame Souleye loolu moo changé waxtaan ak waa wàllu waxtaan ak ñoom ñëpp loolu moo changé assemblée nationale donc majorité bi koy may mu am loi d'habilitation est-ce que am na ko assemblée nationale. mais moom pour dissoudre assemblée la wax de bu bëggee dissoudre. assemblée non pas dissoudre gouverné par ordonnance assemblée mënoo ko dissoudre avant deux ans. kooku muy benn kooku il faut mu leer. assemblée bi de euh, juillet 31 juillet 2024. au delà de 31 juillet 2024 la ñu mën a dissoudre assemblée. d'accord par contre article 77. Hmm. may na président mu gouverner par ordonnance bu fekkee ni assemblée nationale habilité na ko. Hmm. Euh, l' assemblée nationale peut par une loi habiliter le président de la république à prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. et le cas échéant chaque ordonnance doit être ratifiée par l'Assemblée nationale toute ordonnance qui n'aura pas été ratifiée par l'Assemblée nationale sera caduque loolu la teg si wax loolu lu leer la suñu constitution moo ko wax léegi nag ñoom dañuy menacer nit ñi mais mais mais nit ñi nañu nañu nañuy xool quoi maa ngi leen di renvoyer rek ngir yàlla article 77 constitution ku ko tàppee Google dina ko gis hmm. ngeen xam loolu la loolu lañ ci wax li muy wax mënu ko def ci assemblée boo xam ne amu ci majorité. d'accord bi mu amee 125 députés mënoon na gouverner par ordonnance mais assemblée bii bi bi bii. mënatu ko moom 82 députés la. <laughs> kon loolu leer waaw te loolu est-ce que du laaj loi organique. te loi organique il faut la majorité de 3 cinquièmes 3 cinquièmes mooy 99 députés. fu mu koy jëlee foog mu waxtaan il peut pas. Mhm. voilà loolu la loolu na ko nit ñi fàtte. loolu ay waxu waxu politicien la mais mais mais mënu ko mënu ko. d'accord constitution prévoir na ko mais configuration assemblée mayu ko ko il faut waa Yewwi ak waa Wallu d'accord d'accord ci loolu pour mu mën a am 99 voix yu ko votel loi d'habilitation d'accord loolu leer na loolu leer na sànq yaa ko tudd muy Amadou Ba bi xam ni tabbu na ko premier ministre mais yaa ngi guddal de ah, <laughs> noonu mm-hmm. yi mm-hmm. <laughs> mooy yu mujj yi yi mooy yu mujj yi Amadou Ba bi mu tabbu premier ministre tekki tekkaaralam gu yàgg gii nii maam mm-hmm. ay stratégie lu ñu teg la wala ñoom ñoo ko doxalee noonu. mais Amadou Ba loolu moom noonu la mës a mel Amadou Ba waxam mësul bëri. mais en tant ministre. mais Amadou Ba non ñu ngi koy xaar ci euh, déclaration de politique général moom nee na ah. pare na dina ñëw assemblée euh, xàll yoonam dina def déclaration de politique générale après ci la ñuy xam lan lay teg. Hmm. waaw fi mu nekk nii mu ngi ci liggéey boo xam ne xam naa def pare na ci nee na pare na ci donc euh, mais moom il est pas très bavard il est pas très agité moom ku ku dal la ku tey la. d' accord waaw sama sama la rek. <laughs> léegi xam naa bi la ñuy daanee mhm. rek après. ñu bàyyi la ñu bàyyi nga dem parce que président Macky Sall gis nañ ko tey mu recevoir Serigne Daare gis nga seen diggante ñoom ñaar dafi juróon am Serigne Daare am na ñu tax tey ji am na ñoo taxam sax dañoo taxaw ñu la di ko ŋàññi est ce que jàpp nga ni li leen recevoir tey jii nii mën na euh, saafara wala mën na nëpp nëppal euh, maanaam jafe-jafe yi nga xamante ni si ni tegoon na ko parce que moom moo fi tëj daara gis nañ fi moom moo fi tëj daara jàpp fi sëriñ daara libéré fi ay taalibe est-ce que jàpp nga ni li muy def nii mën na rataxalaat diggante bi ni mu recevoir sëriñ daara yi am ñu dem wuy ji ko fële ca palais eh, ngir mu mu bëgg leen delloo seen àq ak seen ay yelleef non déjà xam nga ni ñenn la ci sëñ daara yi comme ni mu recevoir woon ñenn ci imaam yi imaam yi doon yi ko campagnal ci affaire góor jigéen yi mm-hmm. et puis affaire góor jigéen sax euh, rapport département d'état wax na ci tamit Euh, loolu euh, dañ ci fàtte dugg donc ñenn. ci mhm. sëriñ daara yi xëy na ñoom ñoo wuy ji mais gis nga ni féewloo am na ci parce que sëriñ daara yi euh, dans le écrasante majorité la bañ parce que nee nañu audience bi du Macky Sall moo ko sàkku mais benn jegeñaaleem benn bonne volonté. Mm. moo moo moo démarché pour Macky rencontrer sëriñ daara yi Macky nii leen pourquoi pas donc am na ñu ci gis leneen yenn sëriñ daara yu ci gis leneen am na ñoo xam ne aussi. Euh, ka kaay wuyu rek la ñu yàkkamti kaay président am na ñu ko yàkkamti Sénégal donc président bu wootee moom dina am ñu ko wuyu si xam nga même bu wootee ci ku jige sax dina am ñu ko wuyu si fu mu mënti wootee dina am ñu ñu d'accord am ñu bañ donc mais loolu mais dañ leen di bàyyi rek mu ngi mel ni imaam yi ñu ñu yi ñu woowoon ñu defaan ay politique des prières baisse des prières ay ay affaire góor jigéen nag euh, voilà and sàmm jikko yi taxawaayam dafa dérangé woon donc ñu bëgg a def contre communication parce que boobu moom jàppoon na ni communication bi ñu def ci LGBT moo tax mu am résultat yu bon ci élection locale yi doon dëgmal législative doon jéem a inversé tendance hmm. loolu yëpp jéem na ko mais taxul mu gagné législative yi au contraire li musul am daf fi am moo ñu séddoo assemblée nationale donc euh, loolu c'est c'est peine perdue hmm. moom la xumtoo ak euh, ak euh, ak sëriñ daara yi na na woo jeunes yi pour xool naka la ñuy wàññi prix yi euh, moom daal na na na rencontré ñu mu bëgg a rencontré ñëpp <laughs> waaw kooku moom am na ci droit gis naa direct bi am na plus de quatre cent personnes yu ko doon suivre. sept cent donc euh, sept cent personnes waaw donc euh, voilà c'est bon. ah que bu Macky Sall bi. bu Macky Sall bi non quatre cent quatre cent. waaw loolu loolu loolu da lay woon rek. <laughs> impact bi mu am ci opinion bi. Mhm. bon ñun suñu direct bi xam naa dina ëpp 400. ëpp na waaw te te te publier wuñ ko et tout te ñun amuñu dayoo président de la république. <laughs> waaw donc nit ñi daal li leen ñor ñoom xam nañ ko. <laughs> waaw li leen ñor ñoom xam nañ ko. Mhm. am na solo moom ma Clédor Sène kon moom lañ doon ànd. mais dama bëgg uh-huh. euh, gërëm euh, Mola Morgan. sama Mola <laughs> Morgan. sama booy la. Euh, mu ngi ñuy jàppale bu baax parce que ñun. Mhm. fii la ñu nekk. dañu exposé. par intelligence. Mhm. am na yoo xam ne ñun duñ ko mën a porter. ko mën a porter mais moom mu ngi ci jàpp bu baax a baax a baax. <laughs> bon xam na fi ñuy waxee big up. moom ah, Mollah Morgun moom Mollah Morgun kon yéen yenn kii mi wax gaay naan mi ngi ëppal yéen moom yooyu kiiwule. non xam nga tout dans une communication n'est pas positive hein parce que man euh, ànduma ci ñuy attaquer vie privée jàmbur en bas de la ceinture. Hmm. mais sur le plan de renseignement du renseignement et des informations en temps réel il fait un hmm. travail formidable. moom Mollah Morgun ah, kon mi ngi noonu Mollah Morgun <laughs> Clédor mi ngi lay nuyu mm. baax a baax di la encourage kon mbokki internautes yi mi ngi noonu euh, tey jii lii lañ leen indiloon seen émission face à l'actualité mu doonoon mbégte ak contentement doon ci ànd ak moom mii di Clédor seen di ko remercier rek à chaque fois ci disponibilité mbo mbokki inter internautes nag nee nañ euh, comme li nga wax sax xam nga période coupe du monde bi yi mm-hmm. fi nekk di xew yëpp ñoom ca bëgg nañ xam nee nañ taxaw ci sa plateforme bi pour ngay mën di